arbitre bi laaj ne ay jugeem mi Sitor Ndour ah arbitre bi sifflé na combat bi diggante Liss Ndiago ak Narou Sogas ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Liss Ndiago ak Narou Sogas Narou Sogas à droite Liss Ndiago à gauche kii jiital pied droit kii jiital pied droit day san ñoom ñaar ñu ngi lewtoo képp kiy bëggee sud bi rek Diba mu ngi lay bëggew maa ngi nuyu équipe bi yëpp ndeysaan technicien yi fa nekk monteur yi fa nekk ndeysaan diggantal di si njaago ak naaru sogaas diggantal di si njaago ak naaru sogaas ñoom ñaar ngi lewtoo ndax dina jeexee fii wala du fi jeexee ci kanam dina leer ndeysaan Narou Sogas képp ko xam war na dépasser catégorie bi catégorie ñoom Moussa Ndoye la bokk ñoom Jos Yékini Junior ndeysaan ay ñoom Franc ay rëg-rëg fa la bokk mais mais sens moo ko indi lii yëpp ndeysaan ak mbaa bi diggantal Liss Ndiago ak Narou Sogas ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante Liss njaago ak Naaru Sogas tey famille Duba ñoo am jom nangoo liggéey ma ngi leen di bëggee di leen ziar ñoom Ali Fall Ada Boy ndeysaan ñoom Maana Ndiaye ndeysaan Naaru Sogas ak Liss Ndiago ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñaar ñu ngi lewtoo diggante Naaru Sogas ak Liss Ndiago diggante Naaru Sogas ak Liss Ndiago ndeysaan Liss Ndiago sànni na gauche droite Liss Ndiago sànni na gauche droite dafa ndox nag mooy diriger combat bi ndeysaan Liss Ndiago na ko daanu laa ilaaha Liss Ndiago dóor na naaru Sogas mu daanu Liss Ndiago dóor na naaru Sogas mu daanu daan na ko jël amul benn werante ndeysaan ku leen fi teewaloon moom mooy Diba daan na ko jël amul benn werante dóor na ko mu daanu foo jëm loo bëre loo bëre loo bëre waaw man maanaam mënu ma man dañ may di ma wax may def quoi waaw dama la bëgg a xamal ni